bu fekkee ne yow amuloo assez de ressources internes pour financer ton développement tu as besoin de recourir euh, au prêt euh, au partenariat avec les les les les PTF ce sont des banque dañoo am seen exigence mënoo ñëw veer ñoom euh, quant à mënoo def une une bonne mobilisation euh, quand tu as un un taux de croissance bu bu bu xaw a jege 70 pour cent euh, mënoo mënuñ la nangul yenn yi quand tu as un un un déficit de de 5,6 pour cent comme c'était le ca daaw. pourquoi nous UEMOA on nous dit 70 pour cent quand tu as 70 pour cent on dit d'ailleurs risque d'endettement élevé du dëgg. waa léegi pourquoi la France est de 100 pour cent et c' est pas un risque d' endettement très élevé. mais France moo ñu ëpp ressource. ah déedéet non France non bor laa wax de bor moom bor la rek. bor bor la rek. waaw mais France dina mobiliser dina France am na assez de niche boo xam ne dina tax bailleurs yi. am confiance ne bu ñu lebee dinañu fay. waaw léegi ñun yow pour yow ñun bu ñu leb ñii ci bitim réew duñ leen wax naka lañ koy fayee. waaw ah waaw léegi nag pourquoi ñu ñu lebal. bu ñu oh. lebal rek parce que xam nañ mën nañ ko fay. gars yi dañoo gëmm di leen lebal boobu ba tey parce que ñu ngi doon am espoir que les revenus du pétrole dinañu ñëw loolu sax moo tax moo tax moo tax seen dette bi explosé mais cinq ans cinq ans derrière on vous tapait sur les doigts donc en 1980 on n'allait pas nous prêter mais cinq ans derrière on vous tapait sur les doigts euh, euh, vingt ans derrière dañ leen ne ngeen def ajustement xam nga tey jii ñun ñoo nangu dans les normes UEMOA am ay critères dégg nga loolu laa lay wax y a des sujets qui n'ont pas d'impact normalement sur la définition d'une politique économique ce plafond là n'a pas de sens parce que nee naa la boo jëleen les plus les pays les plus développés du monde yow chaque année nga dégg shutdown Angl euh, États-Unis wala voilà. parce que chaque année ñoom dañu am plafond de dette mais chaque année dañuy yokk plafond bi bu bu Sénat bi bañee rek ñu ne la wooy kon de américains yi du ñu fayee ko n'est-ce après ñu ut pexe ñu ñu nangu donc yow tu vas continuer à endetter le Sénégal. mais si le Sénégal. et tu vas dépasser la norme. Euh, UEMOA je vais amener des consultations claires je dis j'ai besoin de par exemple soixante dix milliards pour développer le secteur de la menuiserie au Sénégal ñu ne ma naka ma ne dama bëgg jënd ay fabrique dégg nga ma dagal leen ko Kolda Sédhiou Ziguinchor Tamba euh, Kédougou ak Dakar parce que menuisiers yi mën nañ seen liggéey li ñu amul mooy matériel avec le transfert de compétences ñoom ñu produire fii bunt yi. xam nga li ma lay wax bor dafay leer ci ni nga koy mun fay ñoom table yi ngay jënd ci bitim réew bunt yi ngay jënd bitim réew yëpp mun nañ ko defar fii mun nañ ko defar en quantité du dëgg boo leboon cent milliards pour def ko foofu ñu wóor la ni bant yaa ngi fii mun nañ ko liggéey jàng finition yi war mais liggéey boobu bor boobu di nga ko mun fay wala non Mame Boye sois clair je veux être clair je dis. so sois clair booy leb xam nga tey jii ce que le, gouvernement a réussi sur ces dix douze dernières années mooy saa yu ñu lebee c'était arrimé à projet structurant je suis d'accord donc il faut continuer il à s'endetter parce que tey jii les besoins mooy loolu li ma lay wax rek le sénégalais ne se retrouve pas dedans le sénégalais lui il ne se retrouve de dedans su ma waroon leb tey xaalis pour gunge mool yi ma jox leen licence de pêche industriel ma war na lépp xaalis pour gunge leen pour ñu am ay bateau dama koy def parce que liggéeyatuñu parce que ñoom ñooy yóbbu suñu doom yi bitim réew parce que defar benn gaal yóbbu booy Espagne moo gën a rentable que defar. mais da nga koy def ci kaw boo dégradé wul euh, say say say say say notes da koy def ci kaw boo maîtriser ce déficit da koy def ci kaw. boo amee des capacités de remboursement yu clair mais j'ai des capacités de remboursement. di yaa wax mille deux cent milliards la war a rembourser ak les services laa la dette euh, bu ñu ko mënee rembourser lu tax mais nous nos recettes on les connaît aussi mu peut payer ça c'est rien du tout l'important mooy les éléments performance du budget là mooy ils se sont débrouillés pour que li nga xam ne mooy dépense u réew mi dépense xam nga luy dépense mooy fay sa fay sa ay fonctionnaires fay sa service de la dette ak principal bi nga waroon fay ci échéance ñun au moins suñu recette bopp diggante administration fiscale ak mën na ko couvrir mën na ko couvrir weer ba weer li ci des nag loolu mooy performance économique li ci des mooy dañoo soxla tey développer lu ñuy woowee le secteur productif sénégalais xam nga muy lan mooy il faut nga créer automatisation chez les tailleurs il faut nga créer ko chez les cordonniers nga créer ko chez les menuisiers il faut nga am ay instruments yu bees pour les pêcheurs il faut nga am ay instruments yu bees pour les artisans dans tous les secteurs il faut que l' agriculture nga nga xoolal man nekkuma fi di wuti ay tracteurs sama mbokk yi parfois li ñuy soxla bokkul ak tracteur les matériels agricoles yi nga xam ne dafa conforme ak seen besoin mais da koy leb parce que xam nga ne dinañ ko liggéey am ko fay ko